poroxaan tey la fi ñëw tey suba bu la fi dem bu la fi door ñew tay waye bu ma bu soobee yàlla bu ma ñibbee waa fiñ dekk ñepp leen leen yebal ñu ñew fi ah, ah poroxaan ñepp a ngi fi siyaare na mam jara ten bi sax demaguma ca waye dem rang bo bu ga jublu ten ba mu guddi waye génn naa ndox nag boo yóbbu bugg a yóbbu suñ dekk bu ma nak ñooña daa leen waajal ñu ñëw ñëpp ñu def voto ñëw fal ñëw Porokhane magal bi neex na magal bi neex na monsieur Manko bi moom seen jaawate yaay daa daa muñ sayu tënk si ak ndigal yi yooyu seen jaawate yaay nekk woon ci diggante maam Ansa yi ba jur ku ñuy wax maam Xaadimu Rasuul waaw waaw da nga bu baax kay bàyyi coow bon bi bàyyi mees beneen tux ba naan di jël ay ndigal comme ni seen jaataay bu leen bàyyi jaay yoon kay moom. ci bak Sëriñ ndax ya yi seen jaay jëf am ko dégg ndigal maama ansa yi tëb gi jël ay ndigal ba tey. magal gi moom wax dëgg fa yàlla neex na lool kontaan nañ trop def nañ siyaar bu neex tey ñaan daal ay jukkoom ñu mën see tey ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi lool am wér gu yaram. bi man depuis 2011 laa fi commencé ñëw. waa c'est normal dañoo war a ci soxna jaara tey déglu suñ waxi waajur yi ndax parent moom mooy lépp tey roy ci moom daal dinañ am lu baax. waaw màggal gi moom ni ko gisee mooy sant yàlla maa murid yëpp bëgg nañ màggal gi moom màggalu ndongo yëpp la ndax màggalu murid la ndax maam lii. mel na ñun suñu sëriñ ñun maam Thierno Ibra Fadi fi la gané aduna kon maam ñun ñi nga xamantene ño faré darul mohti maam ñun suñu fi suñu cër la da maam suñu lepp magal gi mom xéewal la go xamantene ne kenn ku nekk yaang koy yek sa xol dund wa ni ñaan lepp luñ ci ñaan rek sa borom nangul simbe ci si mbéppum jullit si doole ñuy ñaanal suñu khalifa bi nga xamantene moy mooy seen muntaxaa sunu borom katanal ko te wéral ko maam soxna jaara kenn ku ci ne dañ daan wax naan namu namu daan ak képp ku ci ku jaar ci ay tankam rek da nga da nga gis ndam li da nga gis résultat bi te di nga gis te di nga gis li nga xamantene moy jariñ li nga xamantene won tay tay mom jaar ak ba am limu am ba andi ñu tay sunu yaakaaru tay ak ëlëk gi muy Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xamantene kenn ku ci ne maam gis nga limu mu def jaloore gi mu def waaw ni sante bu baax di gërëm bu baax bépp soxna bu fi ñëw rek war ngaa xam ne ne fii defaruwaay la sa royukaay moo fi ne di sant ñëpp di gërëm ñëpp si doole maam Thierno Ibrahima Fall